citoyen la comme ñëpp comme sénégalais yëpp lépp lu citoyen di def bu def ko jotee danaa ko def sama wareef comme na ma ko war a defee kii laa fee comme ni ma ko waxee woon kii laa féetal laa féetal moom kenn du ko mas a xam ci man man du toog sax di waxtaani politique waaye nag bu fekkee ni daal nit ku ne ak xam ak yelleefam ca fa muy dund ak fa mu dëkk wareef war war na ci moom ñu jàppale ko kon waroon na bu yàgg man ñu jàppale ma ndax bu dee servir am réewam def naa ko ba tàyyi li may doon doon gone servir naa samam réew ba tàyyi ci lii ñu bokk muy sunu culture ñu di ko dund muy sunu humanité sunu sunu diine sunu communité bii nu am muy yoonu murit kenn dootu ci du tudd ab jànkatu xaside te tuddoo ma gone yu baree bari itam maanaam fexe naa ba màng leen jëmale leen ci xaside yi te état dafa war a couvrir ñi nga xam ne tey jii dañuy defar seen doomi réew te man ñu ci bari ci société bi mhm. ci xale yi am naa ci paar ndax séq na maa ak ñoom lu tax bu ñu waroon a fo wala ñu war a taxawaalu duñ ko def ngir ngir nekk ci lu baax mhm. kon euh, bu fekkoon ni tey jii ci réewi tubaab yii ñu nekk la tey mhm. état dina la gëstu dina la taxaw dina la jàppale lépp lu yombal li ngay def dana la ci jàppale dëgg la nag bu fekkee ni ku politique wul dee su la jàppale kon ma xam duñ ma jàppale ndax du ma loolu moom sama baat ca